ñu ci defaraat yeneen ba biir dina saf sàpp ak Sonko ay nag ñuy menacé naan ku fi takk diine ay xaw ma ñeneen ñoo doy kenn jógul fen ñu ñëpp si kabab lañ juróo la ñu raw la ñu màggee kenn ñu ñoo wax mu saf sàpp ci fekk sànq yónnee na ay boy comme de façon très lâche di jël ay avant leen fii naan dañuy génne bi mais bu ñu génne fekk nañ ci waa koñ bi moom kenn mësu lu waay bëgg nag ñu dem seen moom bu dee reewoon na rek kenn moom moomul réewoon de kenn moomul réew naan ay xaw maa ngi dégg mu di ay menaces naan ay day xaw ma day kii dem tëj kaso ndax leer bu wokkee benn patriote këram mooy boy xam nga faraloon ma dañu boyal këram Barthélémy Dias ma la koy wax man la jàngalaat bay naa boo fi wokkee benn patriote sa kër day booy mu lekk ci yow salaam gars yi dañuy gis benn demande bu waa def ne fii du kon paroba yi ci mooy baobab Sonko rek ñu ngi ci defaraat yeneen ba biir dina saf sàpp ak Sonko ay nag kii menacé naan ku fi ay xaw ma ñeneen ñoo déglu kenn jógul benn ñëpp si kabab lañu juróo lañu yaroo lañu màggee kenn ëppale wuñu baobab ñu ñoo bu ñu saf sàpp léegi nag lu waay bëgg rek nañ ñu fekk sànq yónnee na ay boy comme ko defee de façon très lâche di jël ay avant désœuvré di leen fay ay 3000 francs pour ñu ñëw fii kenn mënu ko génne te dinañ dinañ dinañ defar yeneen bant bi takk bi boobam waaw lu waaye bëgg nag ñu dem seen moom bu dee reewoon rek kenn moomul reewoon ne kenn moomul reew naan ay xaw maa ngi dégg mu bu dee ay menace naan ay day xaw ma rek kii dem tëri kaso ndax leer bu waxee benn patriote këram mooy boy xam nga fanaloon ma dañuy boyal këram Barthélémy Dias ma la koy wax man la jàngalaat bay naa gi boo fi wokkee benn patriote sa kër day boy mu lekk yow Barthélémy Dias dégg nañ la bu baax incha allah rabbi bés bu ñuy ñëw sa buntu kër di yuuxu di ambiance di way Sonko dinañ def vidéo wax ban bés nañu ñëw incha allah rabbi ax ban heure incha allah rabbi ànd ak sa waa koñ population Mermoz Sacré-Cœur yëpp ay ñoom bay naa géey ak jeunes yi incha allah rabbi sa buntu kër gàtt-gàtt dañ fa taxaw benn quinze minutes way ba suñu xol yi sedd incha allah rabbi te balaa ñu koy def dinañ wax jour bi ak heure bi dégg nga ah saa nga jël say matuwaay bu baax a baax a baax mi Dias ñoo la gën a xiif fuuf saa waa ji yow xaajoo bay dof pour yow léegi da rey nit après dem tëdd kaso jamais de la vie du si dal boo reyatee sénégalais saawaay xoola gis nga xoola balaa ñu lay rey yow say famille nañuy rey ba pare sa kanam ba pare doog lay rey yow barki Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam da ngay jaay dëmm xaw ma dëmm nga xaw ma saa waay fii doo fi lekkati nit de. jamais de la vie damal Cap Vert wala Amérique nga lekk fa saawaay ay nit mais Sénégal fii dootu si dalati boo koy defaat ñu lay ñu lay rey yow te balaa ñu lay rey saa nañ rey sa ay famille ba pare waaw jarul ay tëbakat dal yii nii saawaay xaw ma da ngay tàqalikoo sa sago xaw ma Barthélémy Dias ñoo la gën a xii fuuf yow du songoole ngay bañ a dégg ñun ñooy ñëw ba sa buntu kër way Sonko ba doyal te balaa ñu koy def dinañ wax jour bi ak heure bi incha allah rabbi waaw kañ saa fi may daanalee nax ay affaire de fetal ay explosif yooyu noonu yëpp arme ministère de l' intérieur daf ko tere instant bii 17 octobre ba 17 décembre waaw te loolu sax ñun yëfu tàppat la ñun soxlawuñu ay arme waaw kañ ñun suñu arme mooy dëgg ak bëgg Sénégal patriotisme moom la ñuy demee kon saa waay xoola boo violé loi yow maanaam da ngay génnee fetal di ko dóor ci kaw sénégalais dóor rek na sax bañ a dee yow waaw génneel fetal rek yow tiire yow saa waay di nga xam waaw kañ laa ñu askan wi noonu naa feq yi waay toos